بالوالد alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ya rab alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah wasalaatu wasalaamu ala sayyidi albashar sayyidina wa mawlaana wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi nujuumil muhtadiina wa rujuumil mu'tadiin wa azwaajihi wa taabi'iina lahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amiin mbokki daara ji assalaamu aleykum ñu del ci seen dars siira tey ci samedi ji di 2 novembre 2024 ci numéro 367 ci seen bind Darou Siré numéro ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci rabiu thani rakki gàmm 1446 ci gàddaay gi dañuy sof rek fi nga xam ni fa la yemoon ci génn àdduna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu ngi woon ci feebar bi laata moo génn àdduna dafa feebar moom alayhi salaatu wasalaam feebar bi ñi ne fukki fan ak ñett ñi ne fukki fan ak ñeent xawaaya dane inda baadin fi taahubihi xaana raxilu lahu fi yowmihi alaalami mu ne xawaa làq na yeddan fukk ak ñeent quatorze jours inda baadin fas leen ni gaayi siire yi fii taahubihi ca waajtaayam wa mooy fas yéene wuy ji boroomam xaana teew na arraxilu laxas ga lahu ñeel ka fi yowmihi ca bésam ba alalami badi bu ñu xam bésam bi ñu xam ban bés la mu ne fi yowmi mawlidihi fi bayti aishatin qabla zawali bi shahril mawlidil azimi mu ne fi yawmi mawlidihi ci bésam juddoom ba ca bésam ba moom mooy bés ba nga xam ni moom la jagoo bés boobee ca la génn àdduna waaye bés boobu ban bés la mu ne fii yawmi mawlidihi mooy bésu juddoom ba muy bésu altine bi nga xam ni léppam ci la koy def ci ban barab la génn àdduna mu ne fii bayti aishatin ci nekk sunu maama aisha mu ne ban waxtu la mu ne qabla zawali une heure mooy la kaar ban weer la mu ne bi chahril mawlidil azimi ci weeru juddoom bu màgg ba feebar bi ñu ni fukki fan ak ñett la ñii ne fukki fan ak ñeent la tëdd feebar moom alayhi salaatu wasalaam feebar bi mi ngi ko daaneel ci jeexitalu weeru safar waaye mu dugg ak moom ci weeru gàmm maanaam feebar bi bi mu koy daaneel ci jeexitalu weeru safar la waaye moom mu ngi génn àdduna moom alayhi salaatu wasalaam ci weeru gàmm ñu ne ci fukki fan yi ak ñaar ci la génn àdduna ñaari fan la am ci safar am na ñu wax loolu am ñu ne benn fan la am ci safar safar jeex mu dugg ci weeru gàmmu moo tax mu ne li laylatin qiila aw laylayni qad xalataa wa qiila fi bi fa baxas wala tanami li laylatin benn guddi la am ci weeru safar weer wi dee weer bi jeex mu dugg ci weeru gàmm bés yi ci des yépp kon da nga naan bu fekkee fukki fan ak ñett la benn fan la am ci safar fukki fan ak ñaar yi ci des yépp ci weeru gàmm wi la ñu ne loolu lañu saxal ñu ne déedéet xii la am nañu wax ni aw lay lay ni wala ñaari guddi la am ci safar xadd xalataa ba mu wéyee ca la euh, dugg ci weeru gàmmu kon bu fekkee ni ñaari fa an ñaari fan la am ci weeru safar ñi ne fukki fan ak ñett la tëdd feebar kon ñaari fan lay am ci weeru safar am fukki fan ak benn ci weeru gàmm bu dee ñi nga xam ne dañ ne ñeent ak fukk la maanaam fukk ak ñeent ci ay fan la tëdd feebar su amee ñaari fan ci weeru safar kon fukki fan ak ñaar la am ci weeru gàmm moo tax li laylatin am nañu wax nii genn guddi la am ci weeru safar xii la am nañu wax ni aw laylay ni wala ñaari guddi xat xalataa ba wéyee wa xii la wax nañu ne fii xubbihi ci fukki fanam yi ak ñaar ci la génn àdduna moom alayhi salaatu wasalaam mu ne fabxas wala tanami fabxas na nga gëstu wala tanami te bul sàggan nag na nga def yitte ci gëstu ba gis ni lii mooy lu wér alayhi salaatu wasalaam kon laata moo génn àdduna feebar na ñii ne fukki fan ak ñett la ñii ne fukki fan ak ñeent waaye daal li wér te wóor mooy bésu altine ci la génn àdduna moom alayhi salaatu wassalaam bésam boobu nga xam ni mooy bésu altine nga xam ni ci la gane àdduna ba muy génn màkk bés altine la ba muy dugg medina bésu altine la moom ci la gane àdduna waaye ci la génn àdduna mu feebar nag feebar bu metti aïcha radiallahu anha sunu maam aïcha nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi nga xamee ni feebaram bi metti na mu tiis lool ndax metit yu tar boppam bala doon jàmbat naan waarasa di jàmbat bopp buy metti siburu bu metti dal ko te teewul dafa daan wër di aye ci soxna yi Aïcha nee soxna yi daldi réunion waxtaan daan ni daal nañu bàyyi alayhi salaatu wasalaam mu toog néegu Aïcha moo ñu gën a féeteeg ndaw te sawar na te it déggoo na ak moom xam nañ ni yonent bi mel ci moom soxna yu baax muy soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam am yërmande ci moom ñu daldi nangu ñoom ñépp bàyyi ko moom alayhi salaatu mu dem tëdd ci néegu sunu maama Aïcha radiyallahu anha ci lañ ko jëlee ñaar lëng ko moo tax mu ne fa xaraja moom alayhi salaatu wasalaam wa huwa bayna rajulayni taxutu rijlahu fi l ard bayna abbas ibnu abdulmutalib wa bayna ali ibnu abi talib karamallahu wajha aliyun ak abbas ñoo ko lëng tànk yaa ngay jireeku ci bi mënta dox boobu feebar bi gañe na ko alayhi salaatu wasalaam ñu lëngu ko jëm ak moom ci néegu sunu maam Aïcha radiyallahu anha ñu yóbbu ko mu tëdd foofu Aïcha nee bi mu duggsee bésu altine la bi mu génnee àdduna bésu altine la kon une semaine la def ci sunu néeg maam Aïcha radiallahu anha altine la fa dugg altine la génn àdduna alayhi salaatu wasalaam Aïcha nee na feebar bi tar lool metti lool ma jël ndox jël morso tooyal ko teg ko ci kawam ci saasi borso bi day wow koŋŋ ngir tàngaay ak chaleur buy jóge ci yaramam alayhi salaatu wasalaam feebar bi metti lool abdullahi nee na dugg naa ñëw seet yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mu feebar feebar bu metti siburu nag xam nga siburu feebar yépp moo ci gën a metti grippe nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma ne ko dangaa feebar mu ne ko waaw sa feebar bi metti na de mu ne ko aha ndax kat li ngeen di siburu yéen seen benn siburu mooy sunu ñaar dañ koy double inni uaku kama yuaku rajulaani minkum sunu siburu mooy seen ñaari siburu te gis nga girib ni mu mettee bu la dalee nga xam ni doo xam lu lay metti mu tar lool metti lool ba nga xam ni dana egg sax ci tàngaayu yaram ba léeg-léeg ku mu dal ngay déliré di waxtu ngir mettit wu tar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñoom yonent yi bu ñuy siburu wala ñuy feebar dañuy duble mettit wi allahu akbar kon nga xool yonent bi lan la doon jànkoonteel ci feebar bu tar mettit wu tar ci si buroom boobu nga xam ni grippe boobu nga xam ni moo ko dal keroog ba mu war génn àdduna alayhi salaatu wasalaam waaye mu ne ko nag li yépp nga neen la yiw la ndax maa min muslimin yusibuhu azan shawkatun fa ma fawqaha illa kaffara allahu biha sayi'aatihi kama taxutu alshajaratu waraqaha rawahul yi mu ne ko waaye nag siburu walla feebar bépp jullit boo xam ni lu ko mënti dal doonte dég gu la jam la ak lu ko féete kaw doonte dég la gu la jam nga nangu dogalu borom bi lu dul ni loolee la dal ak nattu ba lu mu doon nee na day doon kafaara ci ay bàkkaar ci ay ñaawteef yoo xam ni yàlla borom bi subhanahu wa na la koo topp day effacer bàkkaar bu fekkee ni yàlla teg na la nattu nga muñ ko nangu ko mu ne ni nga xame ne nag noonu la feebar di ruusale ay bàkkaar dafa mel ni garab ni xob yi di ruttee bu ngelaw ñëwee noonu lay def ay bàkkaar kon na képp koo xam ni feebar nga nga muñ rekk te xam ne yàlla moo la ko teg bañ koo jiiñ kenn dañ maa liggéey dañ maa ngelaw jeeg lu ne nga wax ko bëgg koo teg ci loxol mbindeef loolu moom bàkkaar rek nga cey jële waaye boo nangoo ne yàlla moo la ko teg dana far say bàkkaar yépp muy feebar boo xam ni alayhi salaatu wasalaam dal na ko mu metti lool tar lool mu wax ni ñun anbiya yi sunu nattu mooy gën metti seen nattu sunu feebar mooy gën a metti seen feebar ni ki noonu nit ñu baax ñi ku la gën a jege yàlla rekk moo gën moo la gën a tiis aw nattu gis nga képp ku la ëpp cër ci yàlla moo la ëpp nattu moo tax alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ku nekk nu sa cër toll ci yàlla sa nattu noonu lay toll kon nag gis nga mu ne inna ashadda annaasi balaa al anbiyaau summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum mu ne ñi gën a tar ay nattu mooy anbiyaau yi yonent yi topp ca ñu saalixiina yi topp ca ñi gën a baax rekk ku la gën a jege yàlla ëpp la ca rekk moo lay gën a tiis aw nattu moo lay gën a tiis balaa kon nag la nga cay dégg rekk mooy kenn ku nekk kon nu sa nattu toll rekk sa cër noonu la toll ci yàlla yàlla nañu yàlla jox xolu muñ yu ñu ko muñee bu dalee sunu kaw te yàlla woyofal ko jële nañ ci Aïcha radiyallahu anha mu ni yonent bi alayhi wasalaam bi mu feebaree feebaram bu metti boobu muy si buróom boobu nee na damay jël ndox teg ko jël loxoom dugal ci maas pour mu raay ko ci boppam ngir tàngaayu yaram wi waaye yonent bi alayhi salaatu Aïcha nee na su ma jëlee ndox mi raay ko ko dangay dégg mu naan allah ilaha illallah inna lil mawti sakaratun laa ilaha illallah inna lil mawt sakaratun ma ngay tudd yàlla de ma nga naan ay waay dee am na wextaan waaye ay waay ndeke dee am na wextaan waaye gis nga alayhi salaatu wasalaam ñu wax ni feebaram boobee nga xam ni ci la génne àdduna sukuraatam sa lu tax mu metti mooy dafa teggil tiis ak sukuraat wu metti xeetam ndax sukuraat dafa metti moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun jullit ñu mënuñu koo fay bu fekkee ni wextanu ndee téeméer la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël na quatre yi bàyyi noog benn bi ngir yërëm xeetam am yërmande ci xeetam alayhi salaatu wasalaam Aïcha nee na nga naan laa ilaha illa allahu inna lil mawti sakaratun ay waay ndekete dee am na wextan waay Buxaari yi moo ko solo radiallahu anhu tey ñu jële ci Aïcha radiallahu anha nee na abdullah abdurahman ñëw na dugg si yore benn soccu bu tooy mu alayhi salaatu wasalaam di xool socc bi Aïcha ci xam gu mu xam yonent bi mu xam ne yonent bi dafa am aajo ci socc bi mu jël socc bi damm ko daldi koy eh, yëy daldi ko jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko joxee mu wadd ngir amul kàttanu téye ko ndax metit wu tar mu mel ni waxtu wi dab nañu fi rek la ñuy ni incha allahu taala di leen jox rendez ci beneen numéro bu ñu ñëwee rek sof fi nga xam ni fa la yemoon seen mbokk la seen xarit seen soppe alxaaji bàcc sàmb wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil waalibin